mais mais mais pas Malick xam nga waxul troisième mandat bi dama ci sonn bëgguma ci dellu si et ça va bientôt être tranché euh, yaa ngi doon xaar peut-être ma ne la comment un jeune qui a combattu le troisième mandat peut aujourd'hui euh, porter euh, un discours euh, boo xam ne dafay euh, dafay conforter la problématique du du troisième mandat mais je vais te poser la question quand tu vas répondre dinaa répondre mais dama bëggoon apporter une petite précision. Hmm. je suis en phase avec vous. que effectivement jeune bu ñu jàpp sur des délits mineurs participation ci benn manifestation boo xam ne dañ ko interdire war nañ la mën a bàyyi mais li ma ciy teg mooy loolu xam naa ne commissaire procureur ak ministère de la justice ñoo ma gën a comprendre loolu pour faire le travail maintenant pour revenir à votre question wax naa la man 2011 bokkoon naa si ñu jàppoon ne Abdoulaye Wade warul am troisième mandat ma tegoon ko ci fan ma tegoon ko ci une lecture une lecture profane de la constitution je dis profane parce que man je n'étais pas un juge constitutionnel et jusqu'à présent je pas un juge constitutionnel ma tegoon ko ci fan ci une idée reçue une opinion yaa ngi dégg politique boo xam ne dafa toog interpréter la loi wax ne lii moo war a am ma topp ci mouvance boobu bu ma toppee ci mouvance bi ba à la fin ay nit dee nañ ci ay mbir yàqu nañ ci remettre nañ ci en cause lu bëri et bu ñu demee ba ci fin bi à la fin on nous la montagne a accouché d'une souris. cest parce que wan nañ ma ne yow waroo woon wax conseil constitutionnel moo war a wax <laughs> donc ñun ñëpp suñu toogoon xaar déglu conseil constitutionnel maanaam tàmbalee ca nu mu ñu mujjee. lu ñàkk ay dee. xaaral xaaral dama lay wax rek man waxuma instrumentalisé. da ah, ngeen instrumentalisé woon la jeunesse bàyyi ma wax bàyyi ma wax mu génn di xeex. waaw wax bàyyi ma wax bàyyi Fodé Ndiaye dees ak ñoom Mamadou ma wax yaa ngi dégg. Fodé man donc je me suis dit ah peut de ñun suñu toogoon parce que tamit su fekkee sànq yaa ngi may wax ne dañoo war a def bilan wu programme xëy ndaw yi constaté peut-être ay échec ba pare jëm ko corriger soo mënee combat politique vingt dix ans après quinze ans après danga war a def le bilan de ces combats politiques moi je me suis dit ñun nu ñu mujjee woon ci ab Ablaye Wade bi suñ fa njëkkee woon du ñàkk tey Fodé Ndiaye ba léegi ñu ngi naan kaan Fodé Ndiaye mun naan ñu naam peut-être du ñàkk ba léegi ñu ngi naan Mamadou Diop mun naan ñu naam donc man je me suis dit que j'ai pas ce droit et j'ai le devoir aujourd'hui ma def la nga xam ne moom laa waroon def mooy toog xaar conseil constitutionnel mu jël décision mm. mais tu as porté aujourd'hui c'est ça que j'ai fait tu as porté mm. et argumenté le débat autour du troisième mandat fan laa ko porté man benn gis-gis ak benn position laa am ci troisième mandat mm. bu njëkk bi mooy président Macky Sall posé gul acte buy wane ne dafa bëgg def troisième mandat gisuguma ko en tout cas l' acte officiel posé guñ ko loolu mooy bu njëkk ñaareel bi sama conviction mu ngi am ci conseil moom mooy décidé léegi ñetteel bi nag loolu man maa ko wax et je mm-hmm. mooy man su ma sañoon président Macky Sall day continuer su ma sañoon président Macky Sall su ko constitution bi mayee dafay continuer à être non waaw ñooñu Ablaye loolu la waxoon loolu laa wax sama opinion loolu mooy sama opinion sa Ablaye na ci droit waaw jeex na mm-hmm. amoon na ci droit voilà donc de la même manière ci droit ça euh, euh, xam nga yaa ngi convoqué affaire droit yoo xam ne man duma ci dugg parce que xaar yaa ngi dugg ci loo Ah. ay nit deewoon nañ ci mais mais dañoo waxoon mun na munul ku nekk di wax ñuy werante ci plateau télévision yi ba dem xees ci mbedd bi ay nit dee ci donc lu mel noonu soo si jaaree soo si jaaree peut-être ay ñoom Sonko ak yooyu nga xam ne jaaruñu si woon peut-être ñoom mun nañu mun nañu ci dugg mais man mi nga xam ne jaar naa ci loolu aujourd'hui su may def benn bilan lucide de sama participation ci combat boobu damay def la conclusion selon laquelle kii war a wax nañu ko